baax Sonko nag luy njiig mooy njaak l'observateur ne daal ak lu ci mënti am situation économique bi nga xamante ni Sonko fësaloon naka keroog du sedd dara ci réew Sénégal observateur moom fësal ci xëta mu njëkk le rattrapage après le carnage su nataango yu groupe Futur Média dini xamal ni nguur gi mi ngi teg ay yoon di xool naka lay faye bor bi nga xamante nag dañ ko yore journal bi ne boo moytul dinañ dakkal yenn subvention yi te tamit obligation souveraine yi ci wàllu dollar wàcc na bu baax a baax solo yéen kaay ñëwaat ak ñun ci manipulation chiffre finance publique yi nga xamante ne nag nguur gi fi nekkoon joxe woon nañ ko journal bi ne Sénégal nag am na lu rëy li nga xamante ne nag mu ngi ko ciy risqué bu ñu sukkandikoo si benn expert ndaxte nee na nag ëllëg xel mën naa teey ci done yi nga xamante ne nag gouvernement bi ñu ngi koy jox partenaires yi waaye nag obligation ci wàllu dollar fi ci Sénégal nag wàcc na téeméer yoo jël ñaar yi am na ab bataaxal bu nga xamante ne nag génnee nañ ko di ngàññ bu baax xibaar yu wérul yu nga xamante nag dañ koo génnee daal di koy gàll ci ndodd jëwriñ bi nga xamante nag moom leen dénk wàllu finance di Cheikh Diba suñ naataangooy Walf Quotidien ni maquillage bi nga xamante nag def nan ko ci compte public yi mbir yi mën naa indi xel gu teey ci signature Sénégal Mor Gassama xam-xam màcc ci wàllu koom nee na chiffres yi nga xamante ni wérul te nu joxe ko rak mën naa indi jiixi jaaxa ci marché yi ca jamono jooj nag Sud Quotidien dellu siwaat ak ñun élection législative anticipée yi nga xamante nag namm nañ kaa amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bii di ñëw ñeent fukki liste ak juróom-ñeent am nañ ka ci waaye nag li ci yees te bett ñëpp moo di yenn kàngamu politique yu bëri ñoom nee na nag duñu bokk ci liste yi ci élection législative yi lee bokk na ci Aminata Mbengue Ndiaye bu parti socialiste Aliou Ndoye nekkoon fi ministre ak Serigne bay Thiam am Ngouille Ndiaye moom it nekkoon jëwriñ bi nga xamante nag moom lañ dénkoon biir réew moom ak partem bii di PSD ñoom du ñu bokk ci élection législative yii di ñëw ca jamono jooj nag lee fa yéenekaay ñëwaat ak ñun ci aay gi nga xamante ni préfet bu Ndakaaru aay naka manifestation waa ATEL kuréelu opposition bi nga xamante ni nag moo judd bees ñoom ñu ngi koy baax ndaxte ñoom jàpp nañ ni lii ab dictature la te nag duñ ko bàyyi mu sedd journal bi ne ak lu ci mënti am moom préfet bu ndakaaru du Chérif Mouhamadou Blondé Diop moom nee na nag rassemblement boobu kenn du ko amal ca place de la nation li ko waral nee na dañuy bañ débordement am ba noppi mën naa gàllankoor gi dem bi ak dikk bi rawatina bu BRT bi bés bi la jour ne waa atel ñoom nag nee nañ aay a sedd ndaxte jàpp na ni bu nu bàyyi seen loxo rek mën naa indi leneen moo tax nag dictature bi fi nekkoon te ñi nga xamante ni nag ñoo fi nekk moom la doon xeex ba nu toog fi ñoom ñu bëgg a wéyal loolee duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg le quotidien yéeni kaay dikk ak ñun ci Amadou Ba nekkoon fi candidat Benno Bokk Yaakaar taxawaay gi nga xamante ni nag moom la taxawee ngir récupérer militangu Benno Bokk Yaakaar yi moom nag mi ngi def kéem kàttanam ngir récupérer leen enquête yéeni kaay dal Aliou Sané bu Yanamar moom nag ay kàddu dëggam la yëkkati daa di kay wax ci journal bilee nee na nag nguur gi dafa war a seeyal institution yi nga xamante ne nag amul njëriñ ba noppi nag li ñuy dépensé ci koppar bari na loolu nee na Ablaye Wade amoon na ay limite waaye Macky Sall moom jéemu ko woon sax moom Aliou Sané ci biir l'enquête yenn yi dina xamal ni dañu war a def suñ kem kàttan ba daal di ñàkk démocratie bi ndaxte nag lu am solo la ci miim réew tàggat yaram ak réew mi sport dina xamal ni suñu gardien bii di Edouard Mendy dafa amub gaañu-gaañu moo tax nag du mën a bokk ci ñaari match yi nga xamante ne nag war nañ kaa fubal ci weer octobre bii di ñëw